ngir damay mer dóor portable bi askan bi Sénégal lan la kan mooy sàgganee ku baax ku jub ku màndu ku yiw doyloo yàlla suñu boroom te ngeen ay jullit ngeen te ngeen ne yàlla ngeen di topp ngeen gis ku nga xam ne ni soxlawul dara àdduna lu dul jagar Sénégal ngeen bugg a sàgganee jëmma ji ma wax leen nag ñu mel ni suñu wàccee ci àdduna bala ñuy del si waat mu jël téeméeri at su fekkee ne nag d'accord ngeen a toog téeméeri at di xalaku jël leen jël leen waaye dangeen a gisut waaye lan ngeen buga lan ngeen ah, Sénégal man suma man man man man baax naa waaye yen laa yërëm yéen a ngi si jafe-jafe seen dund doyut seen dara doyut kii ñëw ne leen dama leen bugg a jagaral soxlawu dara ak àdduna na jagle réew mi jag waay lan la man daal daal wax dëgg ne yàlla man man man man dama jaaxle si sénégalais yi. fan la ñuy xalaatee ak fan la ñuy gisee Ousmane amut moroom benn la benn amut keneen ku yaakaar ne am na keneen ku mel ni Ousmane yaa ngi nax sa bopp kon xamoo àdduna keneen newu fi Ousmane yàllaa ko wàccee. xam nga xam nga li yaakaar ne nag dina mel. xam nga li lay wan nit ki toog naan diw mooy diw ku la déglu te bu doon borom nopp ak boromi xel rek di nga ku neex a di ngay nekk ndax diw mooy diw. lan moo la mm. tere tudd diw te bàyyi diw bu fekkee ne mooy diw booy tudd diw kañ génnee ci diw xam nga ndax dégg nañ ma wala déet est-ce que ñu ngi may dégg diway diw yar wax bu diw doonee diw kañ tuddal diw rek saa indi diw ca wetam waaye lu tax nga ne diw mooy diw te diw pour mu am dara faw ñu tudd diw ne diw a joxañ ñu dem ci diw olof lay làkk kon jamono jii du jamono yi ma waaye valeuru nit ki diw moomu ñuy wax ku mu joxañ nga tedd ku mu tudd nga jóg muy koo xam ne day boole xol yi muy ku yaatu xol Mm-hmm. parfois bu ma waxee ñu ne ma projet la. Mm-hmm. nit ki compté wul. waaye tey ñoom ñoo ñu naan projet la nit ki compté wul tey ñoo la gën a fonk fonk sangu-sang yi muy Seydina Mohamed moo ne projet la andi woon. Mm-hmm. waaye kenn musu koo changé ci pro bi ba keroog. mission di mat xeex na. joué na stratégie waaye mësta toog bàyyi keneen remplacé ko toujours dafa nekk ci sur le front. ànd kook ay gor ñu reyante ñenn ñi ñu dagg seeni loxo. ñoom jaafar Seydina Alioune ñoom ñëpp ñu taxaw dëgër mooy li ndaanaan bi waxoon Ousmane dem askan yi ba benn jamono mu ne leen soxlawu ma kuy jooy may borom mbilli gi te sama bët mës ta xonq ñaan baax na lool waaye soxlawu ma ay ñaan jamono jii ma toll ay mhm. borom fit laa soxla borom fit du wuti pexe borom fit mhm. pexe mooy yenu jaasi taxaw xeex kon ma bàyyi la nga continuer buñ koy wax damay kontaan ci mhm. Ousmane yàggaleel dëgg la loo wax dëgg la ndax suñu kuñ kuñ yaakaar ne moom mooy taxaw si réew mi pour war a génne Seydina Ousmane Sonko fu mu ne da ngeen a xamul réew nu muy doxee da xamul réew nu muy doxee kooku munalut muna munalut boppam dara foofu noonu bay war a génnee Ousmane mu nga xam ne nii moo tàmbale lépp yéen fan ngeen ne si ban àdduna ngeen ne kenn gënu leen a réer dangay xool nit ku set wecc set wecc wecc la set vacances di jot ku ne dugg si fu la neex moom mu dem di xool di jàng nu ñuy xamee suñu borom ñu soxla saari nit kooku noonu jiite réew mi doxal réew mi lu ñëpp a bokk ñépp a jot si yéen ngeen fas yéene ne déedéet ñun bugguñ taraanga dañoo bugg a dëkka si coono bi ilaa yawmi diin ndax fu ngeen jëm dangeen koo xamul gis nga Macky mii puusut paasut na leen leer te su fekkee ne da a yaakaar ne boo leen demee jongante dangeen di am ndam wallaahi maa ngi toog di leen xaar doo leen fa jëlee dara tus nga leen ngeen fa dul jëlee da di dangi dangi rek Ousmane amul ku mel ni moom kenn la ci Sénégal kenn la ci réew moomu léegi nag ndegem lii ngeen fas yéenee def téye seeni bopp moom waxoon na ko ma doyloo yàlla léegi mu doyloo yàlla yéen ngeen continuer si seen làmba jeeg seen soirée yeeg seen caaxaan yi ndegam bugalu leen seen bopp jàmm léegi moom mu doyloo yàlla fu mu ne waaw mu ngi fag yàlla de mu ngi fag yàlla yàlla mu dénkoon boppam mu ngeeg moom foofu noonu. kon papa bàyyil ma téye la tiitalu ma ko ragalalu ma ko. bàyyil ma téye la ci ligne bi dinaa la dolliwaat yeneen. trois minutes yoo yeggalee sa xol te jël sa micro ñu jëli ji Pro ñu ngi lay nuyu di la ziar am nga trois ba ci quatre minutes. Pro ubbil sa micro ñu ngi lay déglu. di kontaan bu baax baat bi. di kontaan bu baax si waxtaan bi. pap bi génn wax ni kontaan naa si moom bu baax ay kàddu yu rafet. sama xol moo naqar dama naqar. Euh, li xew démb daf ma métti trop trop trop nag daf maa métti te li ma si regretté mooy lan mooy euh, le fait que bi ma amee confiance confiance amoon naa confiance bu baax a baax a baax a baax si si waa Pastef dama amoon confiance bu baax parce que dama ne woon enfin am nañ benn groupe boo xam ne nekk nañ ay ay nit yi yi ragal yàlla en fait nit ñoo xam ne suñu ñëwee dinaa leen wóolu dénk leen euh, Sénégal c'est-à-dire dinaa voté waaw bu ma sañoon bu ma nag tey doo ma mhm. tuddal waa Pastef wala waa xolli der mhm. wala waa baaraam mhm. sañoon tey may wax ci ay valeur u Ousmane valeur u Ousmane laay wax parce que ku ko suul laay bañ taxaw ci kaw bàmmeel bëgg a jëriñoo ñàkkam dama bëgg jii danga may wax sama wax sama naqaru xol ndax dama am lu met mu metti en fait il faut que ñu dégg il ñu dégg ko parce que lii après suba dinañ ñëw toog fi waxtaan suñu waxtaanee dinañ xam ne seen erreur bi ñu def yëpp lii moo taxoon Ousmane Sonko bokkul ci élection yi te dañoo sacrifier Ousmane Sonko ba ilaa yoome di duma ko duma ko bàyyi en fait dama koy wax à chaque fois Ousmane Macky Sall def na lépp pour tere Ousmane Sonko nekk candidat il tout fait gis jël na justice jël na armée jël na lépp mënalu ko woon dara. xam nga xam nga xam nga. mënalu ko woon dara. waaw kaay ma la yaay booy. rek. il a suffi dafa am lu ma lay dugalal rek pour nga comprendre. Mhm. xam nga dafa am loo xam ne da koy wax te ñoragul. mu mel ni mango. bala mhm. neex mu ñor. boo ko lekkee fa muy xaayee taxut mu ñor. xam nga boo leen ne trahir ñu wut fu ñu làqu ba waxagum trahir am nañ dig daje nee nañu mënuñoo xeexal Ousmane xeexuñu dañoo mm-hmm. amee pexe. Mm-hmm. pexe moom dañ koy bàyyeeg ñoom. Mm-hmm. comme Ousmane teg na pexe muy lan. Macky Sall rapport de force la xam. nañu dem ci gat sa gat sa laaj nañu leen ba ñu pare. ak nii ba tey nanguwuñu seen defet noppil nga seetaan leen ñu teg seeni laxas. parce que njëkk naa wax ba ñu nee parrainage dama leen ne da ngeen di tarreel seen bopp. ñu dem ba ca bii ma ne leen mhm. bu ngeen ma nee finalement candidat la du ma weddi. Mhm. ñu andi loolu ba tey nangu luñ ma. Mhm. <coughs> yaa ngi dégg. waaw moment bii leen a xew dañu toll ci jamono joo xam ne nee nañ nañu dëggal suñu bopp pour Ousmane nekk Ousmane newoon leen ci yéen laa yaakaar pour nekk. ñoom ñi Ousmane yaakaaroon pour ñu nekk ñoom ñoo ne Ousmane mënatoo bokk waaye joxañal ñu. donc maanaam ñoom ñoo génnee usmaan waaye lii génnee usmaan benn caabi la du ñaar du ñett. muy gat sa gat sa caabi jooju mooy génne Ousmane. caabi stratégie du ko génne ngay wala ngay fen rek caabi seral du ko génne défendre ay fen caabi nangam du ko génne waaw léegi nag pour nga mën a d'accord ne ñoom trahir nañ toogal nga seetaan leen ba ñu dem ci mbañ ngàcc gi moo tax ma ne man képp ku mhm. yaakaar ci man képp ku ma mhm. doon déglu pour def toogal nga téye sa bopp bu lambar lambari ndax coono ji nga nekk doy na bu ci yokk leneen toogal ñu mhm. seetaan ñi ne am nañu xalaat ñu bàyyi leen ak seen xalaat ba keroog bés ba ñu xool li nga wax yëpp dëgg la billaahi ba ñu dugg ba génn suñu gañee jot pale bi toog ci siège bi ñu ne su ñu deful loolu nag su boobaa ma ne leen da ngeen ko trahir ba ngeen changé yoon ba ngeen bàyyee li mu doon waxoon. dugg ci loolu yàggaleen. c'est pas parce que damay gisaane wala wala wax lu ma neex de mais damaa xam ne dama yàq dama am yàqin ne du ñu gañe dara. billahi wallahi taala du ñu am dara. ku mënoon am dara mooy Ousmane Sonko te moom xamoon na ko depuis de bi moo wax na ko de. kese moom kese moo tëwoon Macky Sall. ñu fi taxaw di nga tëdd. tallaahi démb lañ suul Ousmane Sonko. te man li ma li ma gën a métti si affaire bi yëpp nee nañ d'ici cinquante ans mu nekk candidat te lii mënoon nañ ko éviter te xeex rek moo mënoon éviter lii yéen dëkk boo xam ne justice bi euh, Macky Sall moo ko yor armée bi Macky Sall noo fu noo leen amee dëgg mënoo leen fa am dëgg noo leen mënoo demee élection yoo xam ne fichier bi dañ ko biaisé ba pare. am na ñu si bëri yaay yaay ma de dama lay wàccee man politique ma billaay dama lay wàccee dama lay wàccee xam nga dama lay wàccee danga may yóbbu kër yaama di tax te dem fa jotagul sama oto bi daa pa koy defar pareegul kër yaama di tax ma faa dem léegi kon ay ca papa ci suuf ñu joxaat la beneen kàddu ñu ngi lay déglu politique ma damay tagg Ousmane sargal Ousmane tagg waaw man ma ñëwaat ci ci wàlliyu bi nee naa moom lañ yaakaar àdduna ak àllaaxira man li may wax dama ko ñeme moom lañ yaakaar tey moom lañ yaakaar ëllëg moom la mbokk mi doon wax sànq nda dafa ñëw nangu xale yi nangu nit ñi nangu chrétien yi nangu julit ñi nangu ñëpp loolu mooy daggu xolu per Noël ñun nag suñ yoon nekku ci gis nga li tax mënuñu ko mënuñu déggoo ak moom mooy xaalisu ribaa bi ñuy dundee ndax Ousmane dafa sell nee këram bi mu dëkk moom ak yaayam matul 30 million te ñun ñëpp xam nañ luy milliard Sénégal ni mu yombee ci homme politicien yi milliards de leen a yomb te buñ fàtt nañ fàttaliku di wax ay fay yoo xam ne Sonko di kaa def li gën a jafe mooy convaincre xale xale moo gën a jafe convaincre ca àddina mu fexe ba convaincre xale yëpp li musul am ci histoire dans huit ans mu fexe ba convaincre plus de un milliard personnes un milliard ci monde bi la convaincre waxuma la Sénégal mais Afrique xam nañ Ousmane Sonko diaspora xam nañ kuy Ousmane Sonko ñun xamuñu Sonko ñun mérité wuñu Ousmane Sonko vraiment mérité wuñu ko suñu borom moo ñu tooñ di ñu jox ku mel ni Ousmane Sonko man affaire bi damay toog di xalaat ba mu yàgg ne lan moo waral ñu mérité kii lan moo waral ñu mérité ko te ba tey jii nii complot bi tey la gën a dox ba tey jii nii seen juuj njaaj ñu ngi koy gël. di ko chaque saa yu xëyee ñoom ñu ngi gën a lal seeni naxa sëndëm pour faagaagal doomu jàmbur bi nga xam ne waxu leen defu leen dafa ne rek maa ngi nii nekk simple citoyen am naa réew mi maam jaara tëjal sa micro maam jaara tëjal sa ah, micro ñu ne ko mukk du fi amee amoo droit laaj réew mi amoo droit nekk président amoo droit yee ndaw ñi amoo droit liggéey Sénégal ñu teg ko fan ñu teg ko fan du camerounais du ivoirien du guinéen il est sénégalais cent pour cent léegi lan mooy ndeyu duñ ko jox Sénégal mu jiite kan moo moom Sénégal dañ ne kii baayu kii moo moom Sénégal wala yaayu kii moo moom Sénégal Sénégal ñu ñëpp ko bokk buñ ko doon miiras ku ne di nga ci am dara ku ne di nga ci am lu mu ndaw ndaw lu tuuti di ko ci am mais benn parti ñoo jóg ne ñun ñoo moom Sénégal ñu ñooy def lu ñu neex. ñoo doxalee lu ñu neex moom ay complice Sénégal dëkku mafia la bu ngeen seetaanee film Pablo Escobar ak Sénégal nu muy doxee benn la kiif kiif amul différence bëccëg dañuy nekk ay ustaas guddi ñu nekk ay woyu bëccëg ñu nekk ay nit ñu baax guddi ñu nekk ay délinquant almadi ñaata 4-4 ñoo leeram bu guddi dem yëpp ay jéeg di ko yóbbu ci ay hôtel te bu ñu xëyee sol ay garambu bu yëri yor ay kurus toog ci ay sijaada dëkk bi xam nañ ñu muy doxee dañ ne ci rek noppi mais du lépp lañuy ñuy wax Sonko loolu lépp bi ñëwee nag dafa ne man lii ngeen may woo geer bi ngeen may woo bokkuma ci bokkuma ak yéen du man ak yéen loolu nañ ko eene dafa am xolu iñaan bu nekk ci biiru xolu sénégalais boo xam ne mënul dañ en fait parce que dañ gis ku leen gën gis ku leen gën a baax gis ku leen gën a tabe gis koo xam ne bokkul ak ñoom tey tey mi ngi mel ni nga nekk seefu bàndi di arnaqué di sàcc nga xëy xëy gis nit ku baax ku jub mais da ngay da ngay mer da ngay naan kii lan moo tax melul ni man en fait loolu moo tax nit ñi mënuñu asopte Sonko loolu rek la amul leneen dafa ñoo ne bokkuma ak yéen du man ak yéen bokkuñu duñu benn macha allah macha allah papa tëjaatal sa micro nga toogaat yow moom tey sama invité d'honneur nga ñu jëli maam jaara maam jaara ñu ngi lay ziar ñu may la juróomi minute maam jaara maam jaara sargal Ousmane tagg Ousmane kese bañ a dàq ginaar waxaale soxla maam jaara ñu ngi lay déglu ci qualité Ousmane mu sell mi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. Jiji maa ngi lay nuyu di nuyu sa invité yi ak sa ñi lay déglu ñëpp ci TikTok bi tey sant yàlla bu baax nag ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di wax alhamdulilahi rabil alamin ndax Seydina Ousmane yàgg naa wax ni Macky Sall li bëgg mooy man bu ma bokk ci élection yi lam leen doon wax nag ñëpp naan communication la day day day day day day day fexe nit ñi yërëm ko loolu lépp tey yàlla won nañu ko xam nañ ne Seydina Ousmane moo nekk ci dëgg <laughs> waaye ku jàpp ne prosé bii di Pastef nit mën na kaa doxal ku dul Seydina Ousmane <laughs> bañ àgg ci la vingt cinq février dañ koo trahir nag ñun Pastef ñun patriotes yi dañoo trahir Seydina Ousmane te loolu mooy dëgg ba muy jàkkaarloog ñun ca Kër Massar di ñu wax ndax pare ngeen ñu ni ko pare nañ Seydina Ousmane laajaat ñu ko ba muy ñetti yoon mu wëlbatiku ni sénégalais damay bul ni jiitul ma topp ci nañ làngoo rek ndax sénégalais bu lay jiital jiitul ma topp sa gannaaw am na lum la naral loolu nag tey moo nekk dëgg. wallaahi lazi waxati ko de. ñi ngi tàccu de naan Basirooy Jomaay Jomaayay Sonko lu nañu di ko lenn nag xam naa ko ci man de Seydina Ousmane bu ni ma woon daanul ci teen bi dinaa ci daanu waaye bis naka tey déggaguma benn communiqué boo xam ne génnee gun na ci gémmiñam de moom rek laay déglu nag ak ñi mel na man waaye na ñu xam ni Macky Sall bu tëralee Seydina Ousmane teg ci suuf sénégalais yi ni tekk di ko seytaan ku jàpp ni dana jé dana li mu def Ousmane ba xam ni moom Ousmane mii moo ko tawoon yow tëgg ko ci kanamam bañ àgg ci le 25 février daañu am mbetteel de na patriote yi ubbi seen bët yi te ubbi seen nopp yi te xam ne Seydina Ousmane waxoon nañu lam ñuy wax ba pare Macky Sall xamul négocier rapport de force la xam mhm. mënatu koo baamtu nag ndax ma nga fee ñu téye te dafa ne woon buñ ma téyee ba mu am 3 heures de temps na ngeen ma fi génnee 24 heures. kenn génneewu ko fa ñu barricadé ko cinquante quelques jour ñu toog di ko xool mu natt rek Macky Sall di natt bu nooyee mu jàll mu jàpp ko ñu toog di ko xool ñu jël suukar ak lem rek di ko diw ci suñu nopp yeeg suñu gémmiñ ñi naan waaw bu ñu xeexee Macky Sall day de aj élection yi nañu aj élection yi nañ ko aj nañu xeex loolu mooy dëgg mhm. ku la wax lu dul lii di nooyal di négocier nan Macky Sall Macky Sall Macky Sall ñemewu ko ñemewu ko te chaque jour mu jaar ci suñ kaw jàll. ku jàpp ni Macky Sall waajagul na fee génn Sénégal gii wallaahi li ngay wax xamoo ko waajagul a génn. beneen bi ci des patriote yi nañ déglu nañ déglu Seydina Ousmane waxagul de Seydina Ousmane waxagul recours lañu dogal lañu dugal am 24 heures pour ñu war ñoo tontu fii ba mardi. nañu déglu luy génn ci recours bi ak lu Seydina Ousmane fu mu ñuy joxañ man de bu ne ma woon daanu ci teen bi dinaa ci daanu na xam naa ni ñun moom patriote yi ñoo koy trahir waaye moom duñu trahir ñun mën nañ ko trahir waaye Seydina Ousmane duñu trahir benn yoon te patriote yi da cee boo am ñoo xam ne benn ci Angleterre gii jiji nag maa ngi la koy ñaan rek nga may ma ko mm-hmm. ñun caravane UK Dakar 2024 ànd ak lingeeru sonko yi dañ doon xeex injustice bi nga xam ne moo ñu jëlee woon ñuy xeex Macky Sall moom lañ doon xeex fii ci suñ coordination Mamadou njaay nekk coordinateur bi nangu wut a def ay section nangu wut a def fundraising nangu wut def cotisation deful benn événement ñun ñu daal di beru ubbi suñu caravane yukkee Dakar deux mille vingt quatre vingt quatre ca dip ca deux mille lañ ko ubbi woon suñu amee suñu fukki dërëm dugal ci su ñu amee suñu 100 francs dugal ci suñu amee suñu 10 pounds dugal ci bu ñu amee suñu cinq pounds dugal ci ndax dañoo xamoon ni ñun suñu àggee ci mille vingt 2024 dañuy soxla xaalis fundraising te kenn mënut a joxe loo am ñu def ko mille vingt 2021 ba léegi yàlla dogal samdi ajjuma def nañ suñu collecteur def fundraising am nañ 20 million wala suñ dugalee li des ci cash bi ñu yor li koy manqué 20 million du bari coordination bi musuñoo def benn activité ba démb ñu def fundraising am 3000 pounds 200 3 3 3000 pounds. 3200 pounds 3200 pounds. mu toll ci 2 millions 250 et quelques mille. ñu daal di jël seen sec bind ja ne am nañ 22 millions xaw ma vint millions moo ji ji yii fen fan la am ki yor xaalis bi ni leen bu leen ma takkal amu leen vingt deux millions amu leen vingt quatre li ngeen am deux millions deux cent cinquante et quelques mille la Mamadou Ndiaye ak ñi mu àndal bind ni am nañ vingt quatre millions suñ jogee naan Pastef fu xaalis bi dugg Pastef am na xaalis dañuy yàq xaalis bi wala ñu yor xaalis bi ñoo koy lekk fekk lekkuñu ko fen yi lañ war a bàyyi jiji Pastef dañoo mën fen waa jërëjëf yaay booy jërëjëf xam nga déjà débat di wax xaalis boo xam ne am naa ko te amuloo ko loolu moom ay fen la te Seydina Ousmane du dox ci fen du wax ci fen ci dëgg la teg tànkam tey wax maa ngi jégglu maa ngi ñaanaat yëpp yaay boy jërëjëf jërëjëf maa ngi ñaanaat patriote yëpp ñu déglu Seydina Ousmane lum ñu digal lum ñu joxañ ñu takk suñu ndigg te xam ne détenu politique yaa ngi ci biir ak ñi ñàkk seen bakkan ak Seydina Ousmane ci boppam avenir am ak bu njabootam nañ leen takku taxaw jërëjëf wax ak man dama lay paas mami mami salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu jiji ñu ngi lay nuyu di sargal di la ziar di jox sa wàccu waa jiji macha allah ñu ngi nuyu waa sa ma uh, suñu mbokk yi nekk si tiktok bi yëpp di ñu déglu jiji nag dañoo am na xol depuis démb li ñu dal nag ñoo moo dal vrai patriote yi man vrai patriote yi laay waxal ña nga xam ne ànduñoo dara ak naxee mbaay ànduñoo dara ak la layam ànd ñooy daraak naa féq dañoo ànd ak Ousmane Sonko rek te yàlla tax dañoo ànd ak Ousmane Sonko te yàlla tax projet bi moo ñu boole te ñun projet bi la ñu gëm ñun dañu ne usman Sonko mooy suñu plan A ba Z bokkuñu koog dara boolewuñ koog dara tey ku fi taxaw ne parrainage dangaa dem si yàlla ak Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ku mu joxañ ne parrainé leen ko muy Demba muy Sàbba muy Faatu lang nga fa am yàlla ak Ousmane Sonko la. kon nag tey ñu demee ba yegg si fii ñuy taxaw di yemee layame ñu bëgg wax la nga xam ne kenn mënu ko dégg te Ousmane Sonko waxagul loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba. Jiji benn affaire dafa am nañu nangu dëgg te yàlla tax Ousmane Sonko tey fii ñu suñu yegg see ba fii yàlla ak moom la luñ fi munte am tey muy si parinage bi muy feneen yàlla ak moom la keneen ko fi wax leneen da ngay wax lu ko neex ak foo munti jógee foo munti bokk ñun loolu la ñu wax. léegi nag benn appel la ñuy lancé lii may lancé waa diaspora bi ñoo ko moom jiji dama ne gis nga vingt cinq février suñu buggee am lu ñu lu ñu nar a am. c'est-à-dire dëkk bi ñu jël ko téye ko ñun waa Pastef ñun waa diaspora bi ñoo si war a dugal suñu loxo dem ba jeex xale yi nekk Sénégal xam nañ ne xeex dañ leen a pikiir a pikiir a pikiir su ëllëg leen ne jog leen xeex kenn du jog ndax bi ñu waree jog à chaque fois ñu pikiir leen ne leen toog leen dañuy dem justice dañuy ŋàppati dañuy ŋóolooli xale yi léegi ñoo raw glace kenn nangootul yëngatu comme que demee na nii nag jiji nañu waxante dëgg waa jaspora bi nañu takk seen digg ba mu dëgër ñu wàcc Sénégal xeex bii ñun ñoo ko moom gis nga sànni tàccu bi ñun ñoo ko moom waa diaspora bi ñoo ko war a lijjanti su ma nee diaspora bi nag mooy diaspora bi fépp muy Europe muy asi muy sous région bi ñu nekk Côte d'Ivoire sénégalais yi nekk euh, euh, Dagana sénégalais yi nekk euh, nu mu tudd Zaïre ak na ñëpp wàcc ñun ñu dem lijjanti suñuy suñuy élection teg fa ñañ fa war a teg les vrais patriotes ñu sécuriser suñuy vote suñu demee nag ba woon ba xamuñu gisuñu lu ñu xam ñu wàcc lijjanti kook Macky Sall parce que xale yee fa toog du ñoom ñoo ñu koy lijjantil nañu waxante dëgg. bu du loolu cinq soir du 25 février billahi jiji dinañu am lu ñu bett fii laa koy waxee nag dinañu am lu ñu naqadi dinañu am lu ñu bet bett ñu xam fu ñu koy jooyee toog naan moo ne de pourtant de fekk na bay yey na mbuus fekk na bay yey na mbuus man appel diaspora bi laa def na diaspora bi yëpp takk seen ndigg wax ji bëri na wax ji doy na dajale xaalis bi doy na dajale xaalis dafa fekk na dafa am ka ngay yóbbu dafa am ka ngay ka ngay dem campagne ji na ñuy campagnal jërëjëf ah, ah, Ousmane Sonko ngi prison kan la ñuy campagne campagne lan. campagne pour lan du ñu am dara. dara la dul am. dara jërëjëf xaaru ñu paas na Fama Kane. asalaamaaleykum Guigui. waaleykum salaam waaw bu ngeen mënee gàttal rek parce que dama war a jëli Akhenaton. waaw waaw dëgg la ñun ñu ngi ootee Angleterre. waa Guigui Guigui li xew li xew Angleterre dafa doy waa surtout waa coordination bi tey li ñu def. rusloo nañ patriote yëpp rusloo président Ousmane Sonko ndax fi ñuy taxawee rafetul pro santuñu loolu te boo xoolee patriote dëgg dëgg dëgg da nekk nit ko xam da nga war a dëgg di wax dëgg tey lii ñu jël ñu dem ne dañoo def seen event jël ay faux faux nombre andi naan ay am nañ ay trente et un mille vingt quatre millions ci loo xamante ne si teguwul ci dëgg lool tamit day yàqal te ñu am deux millions deux millions deux cent et quelque loolu teguwul ci dëgg président Ousmane Sonko. Mamadou Ndiaye Mamadou Ndiaye moo def lépp. moom Mamadou Ndiaye moo def lépp waaye nag il faut lii ñu dénoncer ko ba ñëpp xam ko yéen ñi nga xam ne nag yéen ay porteurs de voix il faut ñu wax ak yéen ngeen wax ak askan bi xam ne parce que fi UK li ñu def teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon ñun waa caravane UK di liggéey di Sonko yi ñun ñoo amoon suñu event le 19 dajale suñu xaal def ko trois ans ay def ñetti ñetti ñetti événement ñu am ci ay euh, vingt et un presque vingt et un millions. vingt presque vingt millions. vingt millions la ñu am. ñoon ñi nga xam ne ñoo liggéey trois ans ñun ñëpp xam nañ xam nañ li ñu def waaye tey ji coordination bi li ñu def nii teguñu ko fenn mën a bëgguma guddal waaye lii na siiw na tas fépp. ba ñu xam ne ñoom liggéey ñu te ñu ngi mbubboo Pastef di yàqal waa Pastef loolu rafetul te ñaaw na lool wax fa dëgg yàlla waa xaaral ma paas la ah waa keneen ñëwaat na di. waa a acca waaw parce que live bi tey. live bi tey dama ko ci tagg Ousmane ak wax ay valeur am. ak wax jaar-jaaram pour bañ ko ko suul. dëgg la dëgg la. dëgg la may naa leen lii ngeen di wax nii. waaye uh-huh. damay bañ ñeneen ñëw profito ci di campagne parce que man fi mu toll nii. dama banque uh-huh. sama yoxu di tagg Ousmane tey wax jaar-jaaram bëgguma kenn ku ko suul. acca ñu dëgg la ci li ngay wax nii ci liggéey bi la bokk parce que Ousmane ku koy tàgg ku ne ku ko jàppale tam ci la bokk. te ñun li ñuy wax nii loo xamante ne da koy yàqal la te bëgguñu dara lu koy yàqal. dañu bëgg liggéey bi di jaar yoon ñu koy teg ci chiffre yu dëggu. liggéey bi di dëggu ci suñu biir xol parce que kuy ñëw Pastef rek dëggu moo la fa indi. ak bëgg Ousmane ci dëggoom moom moo tax ñëpp di jàng dëggu. kon nañuy dox ci dëgg di wax ci dëgg loolu moo waral tey suñu woote bi ñu dugg di leeral yi nga xamante ne nii ay naxa sakandang la amul benn sens. amul benn xaas parce que joxe chiffre bu bari àdduna di ko dégg te yow bu ñu la nee kaay joxe ko démontré ko doo ko génnee amul sens kon nañu dëggu di liggéey ci dëggu ni ko Ousmane bëggee même bu dee fukki dërëm la ñu am ñu teg ko ci taabal ñun fukki dërëm la ñu am yàlla dinañu jàppale parce que xol rek mooy liggéey te xol yi set na. Mhm. rek moo am solo moo taxoon ñu dugg si mais vraiment kontaan nañu ñu ñu apprécier liggéey bi ca kaw ca ci lu baax. macha mhm. ko jaajëfal liir jaar-jaaram. Mhm. bëgguma ko ko suuf jëriñoo taxaw ci kooku am di ko jëriñoo laay bañ. doo du am mukk du am xaaral ma jox la maam jaara. gis nga tagg Ousmane. qualité yi Ousmane moo ñu indi ci Pastef ji ji. Mhm. Ousmane jub na. Mhm. dëggu na. am na ngor. am na sutura. ndax lii ñu ko def tey nii xamoon na ko bu yàgg waaye di leen suturaal di leen suturaal di leen suturaal ba agsi fii Ousmane mooy gor moo neex a àndal te gis nga ku ñu jàppale ku dul Ousmane rek wàcc nañ suñu loxo man de moom rek laay déglu hmm. man de wóolu naa ko wóolu goo xam ni su ni ma woon daanul ci teen bi sax dinaa ci daanu moom rek laay déglu waaye fii ak déggaguma mu jox ma consigne ni ma wateelal kii wala jàppaleel kii samay loxo dama koy bank ndax gor googu moo neex a àndal jërëjëf Jiji ñun ñëpp loolu la ñuy déglu Ousmane rek la ñuy déglu. jërëjëf kontaan nañu ah, loolu sant yàlla ñu jox la kàddu gi ñu def benn tour de table. kenn ku nekk euh, boo waxtaanee ba pare tamit na nga tàgguwaale mbokk yi parce que xam naa ne damay ñëw daal di tëj imaam laay dem wëri ji ayca sant yàlla yow la ñuy déglu. waaw ayca Jiji en tout cas. imaam boo mënee envoyé invitation imaam Akhenaton boo mënee envoyé invitation. acca ñu ngi lay déglu. Sénégal laa bëgg rek ñu gën a ubbi seen bokk seen bët yi te xam ni mën nga dévier Jiji mën ngaa dévier sant yàlla mën ngaa dévier coach mën ngaa dévier Mariama mën ngaa dévier n'importe quelle personne mais yàlla kenn mënu ko dévier kenn mënta dévier yàlla te lii nga xamante ni nii actuellement mu ngi xew biir Sénégal dañoo bëgg a dévier yàlla Ousmane Sonko nitu yàlla la du koo xamante ni nii la muy wax daf koy làmbatu mais ku yëg yàlla di wax ci àllu yàlla bi suñu borom kooku bu ngeen bëggee ne da ngeen bëgg di tappale pour mën a defaral sénégalais yi lu ñu bëgg da ngeen di caaxaan wala du fil ard baada islaahiha islaahiha bi yàlla di wax ci baqara ba naasi moom la ya moom la sénégalais yi nekk actuellement di négocier gis nga injustice kenn munu cee samb lenn lenn lenn ci àdduna parce que yàlla moo ko njëkk moo ko njëkk bañ yàlla dafa sàkk asamaan sàkk suuf sàkk géej sàkk ay montagne ku ci nekk mu yam la mu yam loola fi nga war a yam mais bu fekkee géej dafa bëgg a fàqee fi mu ne bëgg na ñëw nangu suuf injustice day taxaw kon li ngeen di wax li ñuy yi ñuy ruumalaan nii yëpp dañuy sonal suñu bopp rek dafa am loo xamante ni nag mënuguñ koo wax parce que maa ngi gis même sax bu ko nit naree wax sax jiji da lay ne te loolu mu ngi suñu kanam te pourtant nag. yor nañu ay ngànnaay yor nañu ay arme yu ñu ko war a mën a faa fa faagaagal mais ñun ñëpp ñu ngi xëpp suñuy bët bëgg jël injustice teg ko suñu kaw <coughs> fu mu toll ñu ñoo jël injustice teg ko suñu kaw mais yàlla wan nañu lépp gis nañ ko teg nañ ci suñuy bët ginnaaw nag ñu ñoo considéré nag ni dañuy jël suñu suñu dañuy jël injustice nangu ko d'accord ko allez li ci kanam rawuli bët maa ngi jégalu jiji di wax ni Ousmane Sonko ñun mënuñu koo fay ndax xam naa ne sax gëm naa ni moom moo ñu gën a nekk ci jàmm bien vrai que tuumaal nañ ko waxal nañ ko lu ne gazé nañ ko toj nañ fi otoom diplôme bi doomam am récupéré waat nañ ko ne doom ji amul amul diplôme yaay ji sonn na sëqatul jooyul yóbbantewut waxut dara ñaari soxnaam ñu ngi dëju fi ñu war a dëju toog kenn déggu waxuñu piisuñu patuñu waxuñu dara loo xamante ni nii ku ko dégg ne ah ñaw gaddi kon li mu war a montré ni ni moom ku baax la ku gore la nit la ku nite la ñun même bu fekkoon sax ay téléphone yu yu yu yu faible la ñu chargé nañu ba ñu fees del del del man moo tax ñun du ñu sonn mukk mukk mukk di wax ci moom mais Sénégal képp ku leen ne injustice mën nañ cee négocier mbir wallahi ñu ngi dóor suñu loxo ci pont waaw loolu daal laa amoon lu ma bëgg a ak yéen te xam ni li fi nag raw li bët bëgg naa la ziar naa la jiji imaam yow mi nekk suuf maa ngi lay ziaraal tamit macha allah macha allah macha allah macha allah sant yàlla macha allah kooku mooy sant yàlla kooku moom ndeysaan borom xel mu set mi ah, ram ah, sap ñu ngi lay joxaat kàddu gi <laughs> sak ramo waaw jaajëf ji sak sak seen tur dafa doy waar <laughs> ji ji yow naan tega amul problème yow faat waaye dama lay dalal sa xel rek te xam ne ni Ousmane kenn du ko suul parce que loolu mun a nekk parce que yàlla moo ko suul si xoli jaam yi ba pare loolu mënu nekk da ngay jéem rek waaye dañuy sonn parce que ndax la parce que jikko yi ngay wax si Ousmane benn bu si gën foor mooy dafa jës bu dafa jës bu xaw ma na am comprendre jës bu si baatu arab moom mooy moom mooy attraction moo tax xol yëpp bëgg Ousmane le fait que mu jës bu dafa jës bu xelu Sénégalais yi ba pare jës bu xol yi. xel yi moo tax ne Ousmane dafa taal xel yi. waaye xol yi tamit moo tax xol yi ku si nekk dafa bëgg jub seen xol yi bëgg bëgg boole comme moo tax ñu booloo fii di wax di xaas ngir Ousmane. parce que Ousmane moo moo jës bu te nit ñi rendul ñu comme ça loolu moo waral ni que xol boobu bu rëy bi nga xam ne mooy jës bu Sénégalais yi kooku rek moo mun a attan projet bi. loola tax parce que projet bi jub bi nga nekk si moom rek yaa mën a dékku ñëpp. loolu la nit ñi xamul siir bu si nekk te te dafa am nit ñi ñoo xam ne dañuy fàtte nii ah, ni ko ni ko jub bi Ousmane te que psychologie bi Ousmane di doxee Macky Sall da ko jàng wut ay tubaab ñu ko jàngal di ko def étude de personnalité étude de personnalité bi gars yi def ci Macky Sall ci Ousmane dañoo xam ne ni Ousmane ah, ki nga xam ne ni moom ñi nga xam ne ni dañuy toog di xaar ne noo joxoñ joxoñ xamoon seen machin yooyu ñuy wax noonu yaa ngi dégg parce que ñoom étudier leen ni bés bu Ousmane waxee rek nit ñi dañ koy topp moo tax ñu tas affaire bi waaye Ousmane du joxoñ parce que xamul tax Ousmane du joxoñ parce que jikko bu nekk si moom la parce que Ousmane du war parce que da di bàyyi xel ni que bu fekkee ni dañu wax ni moom moo joxoñ waa siis Ousmane tamit ñëw na ne nii jox na euh, Cheikh Tidiane Dieye wutal jox ko jox ko mandataire comme la fait que mu mu am ñaar rek Ousmane du tànn du ne dem leen fii bàyyi fii kon yéen ñii di waxaat Ousmane joxoñ da ngeen xam ne ne Ousmane amul jikko boobu noonu parce que du joxoñ su joxoñee rek mooy loolu noonu mooy dafa def séparation te jikko bu nekk si moom moo tax du def séparation kon dal leen seen xel kon man moo tax ma gëm kon ñu bari su boobaa duñu duñu duñ leen fekk si si waa loolu laa gëm parce que ni jikko bu nekk si moom mun ñu ko wax fii parce que vibration attraction yu muy jox si onde yu muy joxe. ond yi nga xam ne moom la Sénégalais di yëg suñu gisee Ousmane ond boobu noonu kenn amoon ko parce que yàlla moo ko def si loolu noonu moo ko def si jaam yi loolu loo tax moo tax ma ne la nit ñëpp nit ñëpp noonoo ko du lenn lu dul lii loolu daa amoon li nga xam ne ni danga ko siy dolli pour dalal Sénégalais yi dalal la yow te xam ne ni sawaay kenn mënu kaa suul nit ñi den dem ba voté di laa wax parce que campagne de désinformation moo tax nit ñi dañoo foog ne non non non soo soo àndee waa siis Ousmane nga fanaan déedéet parce que nit ñi dal leen dañ leen nax si loolu ku si nekk foog nga ni ñoom suñu kiiwee rek Ousmane la ñuy jàppale te te ñoom seen bopp lañ fi nekkal waaye suñu demee ba voté seen xol yi ñooy ñooy rëng-rëngi si Ousmane di leen xam ne ni ah man lu ma def lu ma su leen koy soog a ko parce que Sénégal nuage buy dox si kaw mooy nuage négatif parce que ay xonjam ay lépp donc soo fa nekkee doo mën a dégg doo mën a gis sa seen xel yi attraction bi Ousmane di def yow du mën a egg parce que jubóo loolu mooy loolu mooy point négatif bi nga xam ne Sénégal dañ si bàyyi xel waaye nañu wóolu yàlla rek delloo mbir yi si yàlla te xam ne ni Ousmane ñun ñii ñu ngi boole ñii di wax ngir Ousmane am na lu mu def si ñun ba des fekk ni ba ilaa yoomi diin mooy rëng-rënge suñu ruug yi ba des fekk ni dañ koy topp ba foofu noonu toppee wuñ ko ngir rafet comme ni nga ko waxee ngir dañ ko toppee si jikkoom dañu ànd ak moom si jikkoom te ji nit ki nag sooy ànd ak moom na ngay ànd ak moom sopp ko si ay jikkoom ay valeurs yu muy wootee te Sénégal gisuma kenn kenn kenn ku ko ëppale si loolu wax dëgg yàlla suñu waxee dëgg rek. macha allah macha allah bàyyi di leen ziar di leen dalal seen xel yu ñëpp. te di daal si wax ji daal si kaddu wa rahmatulah. Marie Thérèse ñu ngi lay dégluwaat yow tamit. Euh, man nañu fexe ba la flamme que qui som bi Sonko def ci ñun. ñu fexe ba flambeau bu mu fay nañu continuer avec combativité ñu continuer sans relage ndax faw ñu continuer avec moom jusqu'au bout li may ne rek d'habitude amuñu pour dellu ginnaaw un pas en arrière ñun dañuy xuus continuer ak moom être loyal ndax loyauté léegi dafa manqué nit dignité ak loyauté dafa manqué sincérité dafa manqué te ñun dañoo am lourde responsabilité aussi bien que moom Sonko ci jëmmu boppam responsabilité bi mooy détenu yi responsabilité bi tamit mooy ñi nga xamante ne ci biir combat bi war nañu ginnaaw te ñii nga xamante ne ba ñuy sukuraat seen dernier kàddu mooy bu leen bàyyi balaa ñuy ñuy dog est-ce que Sonko mu ngi ci jàmm donc ñun on leur la te looloo waral Sonko di continuer donc damay ñaan képp ki nga xamante ne yow flamme bi nga xamante ne moom la Sonko def ci yow moo tax sa flamme di tàkk nañu tenir cette flamme parce que nous détenons ce flambeau dañuy dem jusqu'au bout parce que suñu responsabilité la bu ëllëgee. na ñëpp génn parce que lii ñu bëgg lii lii ñu bëgg du am ñu man loolu laay demandé la ñëpp def loolu bu ñu déglu keneen bu ñu def leneen <coughs> lu mhm. ko xam ne ne bu tolloo ci situation bi nii defee c'est pas le moment de te dañuy dem jusqu'au bout parce que suñu vëla te de ça c'est un pacte devons honorer ce pacte dañ ci dem ba mu jéem je vais céder la place aux autres yi parce que bëgguma émotion allah macha allah macha allah. si ñu ngi lay déglu. waaw jigi Seydina Ousmane bu ñu demee ba teg ko benn place nga xam ne mënatu taw wax ñun foofu laa tàmbalee di jooy parce que suñu su ma ko déggaan dama daan ànd ak sawarte dégg kàddu yu muy wax waaye bu ñu xamee ne su waxee rekk day gën a yee ndaw ñi ñu ne xaaral ñu fatta ko ñu fatta porte boobu ñu dem ba kenn génnatut pour wax ak askan bi ndax moom la yàlla joxoon fit googu noonu ak maxaama gu nga xam ne nii man na wax ak askan bi yépp ñuy toog di déglu dégguñu kenn ku war a taxaw di wax nu usmaan daan waxee ma tàmbalee jooy sama yaram daw ma ne manqué nañ Seydina Ousmane Sonko jiji jiji eh, lu ne si biir daal leen ndax walliwu xam nga walliwu daa am walliw daa am Seydina Ousmane Sonko walliwu la walliwu kaamil gis nga lu nit ku set di war a am lépp mu ngi si moom man loolu moo ma gën a naxari moo ma gën a naxari walliwu la est-ce que nit ñi xam nañ luy walliw walliw du xaftaan bu rëy walliw du sikkiñ ju réy waliw dafa am nooy jëfee <coughs> ah ñu ngi sàgganee ku baax waa jiji jiji ñi ñoo doxandeem ñi waaye yéen ñi ñoo kattandeem man nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaye ñii ñoo doxandeem ñii bi leex yàqu ngeen yàqu ngeen te doo leen baaxaat bi ilaa yoomi diin seetaan yéen a doxandeem billaahi yéen a katandeem ah yéen ay ay doomi mbaam doomi xaraam sàgganee ngeen yéen ay katta seen yéen a nukkandeem le falte man la musuma gis ñu doomi xaraamee nii musuma gis ñu kattee ndeem nii kenn xameewu ma nii sax waaye yéen yéen yéen yéen billaahi walaay laay dellu ngeen gannaaw yéen a yées yéen a yées yéen a bañ seen boppa yéen a yées yéen a bañ seen boppa yéen a sàggan waaye ni ngeen ko gis de usmaan du moom moo koy gis yéen yéen a koy gis yéen yéen ay torox yéen yéen ay bugg a dunda ngeen am coono ne lañ dem billahi ne lañ dem yéenay doxal ndeyam foofu noonu yéenay kattan foofu noonu du ka leen ndeyam yéen ñëpp laa wax doxal leen ndeyam man su yeboo ngeen kattan waaw yéen yéen yéen sara su ma su ma mënoon rendi leen rendi yéen ñëpp su ma leen mu yéen a doxal ndeyam ah yéen nit ngeen yéen lan la yéen yéen yéen mbaam sax a tane jóg leen man yàgg naa ko wax sama panel jóg leen ngeen xeex ñaari façon ngi xeex moo am xeexi bitim réew ak xeexi Afrique parewu leen a xeex xeexi parewu leen a xeexi bitim réew xeexi bitim réew moo ne da ngeen a génn ngeen wax lu leen naxari guddi ak bëccëg ngeen tégal ndeyam toog xeexi Afrique génn leen ngeen xeex wan Macky Sall moomoo réew mi katal ndeyam ngeen doxaan ndeyam toog léegi lan ngeen bugg a kataleen ndeyam foofu noonu yéen a fa nekk di xiif. ñun suñ lépp baax na ñun suñ lépp baax na waaw doxaan leen ndeyam foofu noonu ngeen katta ndeyam foofu noonu jiji jërëjëf yéen ñëpp seen saram tey do katta leen ndeyam foofu noonu waaw jërëjëf